أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا ونو تمليجي تربرم بتبارك وتعالى noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey ñu ànd ak yéen ci kitaabu tawxid dëgg-dëgg di soññ sunu bopp di soññ mbokk yi pour ñu góorgóorlu ci téere bi di kitaabu tawxid ndax li nu manqué tey ci sunu àdduna yépp mooy ñàkk tawxid te xam ngeen ne nit bu amul tawxiid amul diine ak ku mën doon su tawxiid amul julli du baax koor du baax azaka du baax aj du baax loolo tax lu bari lu ñuy jooy tey ak di ko nemmeeku ci manqué manqué ci wàllu diine ci sunu bopp ak sunuy mbokk ak sunuy dëkkaaleeg sunuy njaboot dara lu ko lu dul tawxiid lañ amul tawxiid moo manqué tawxiid lañ ñàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam toog na ñaar fukki at wala fukki at di jàngale tawxiid ci mag kenn julliwul kenn woorul kenn ajul kenn joxewul azak lu tax pour tawxiid mën a nekk ci doomu aadama yi caabi ji dugal nit ci lislaam ah mooy tawxiid gis nga tey nit buy tuub kenn du la wax jógal julli kenn du la wax jógal woor kenn du la wax demal ngaa ji lan lañ lay wax loo mooy saxaada yi ndax importance bi mu am te tey li ñu gën a sàggane sunu dund mooy tawxiid looloo tax ngeen gis nit ñi xeetu bokkaale gi ñuy def te du ñu yëg ne ñi ngi bokkaale du ngi du ñu ngi yëg ne du ñu yëg ne ñi ngi tooñ yàlla benn waay benn ci kaw benn kenn ci borom xam-xam yi nee na boo dugalee sa loxo sa poos boo dencoon 5000 nga dugal sa loxo sa poos gisoo 5000 bi mu ne nga génne ndax da ngay da ngay arrêté da ngay arrêté nooy def mu ne da ngay dugalaat làmbaat génne dugalaat mu ne te 5000 rek nga ñàkk mais xoolal ni mu la yitteelee ngay dugal di génne di dugal di génne du la wóor de xoolal ba léegi amagoo yaakaar ne 5000 dafa wat di nga dem ba kër ga sax waay waay xaaral moo wat génne ko daal di ñoqati ñeenti côté yëpp ci ci poos bi nag ba nga gis ne léegi léegi nag 5000 bi nekku fi nga doog a toog nag léegi ah. démb dal na la dégg nga kii nee na li may wax nii démb dal na la. 3000 waaw waaw. ah gis nga nee na làmb ne fas bi fukki yoon ak juróom voilà léegi xoolal te du doy de da ngay toog di xalaat waaw ay fan la wat est-ce que du bi may toog fële est-ce que du bi may romb ne est-ce que du bi may dana la jara seen saay nga toppaat yoon bi te 5000 kese la xoolal yàlla nag moom dara lu la dara da ngay xëy doo julli suba ba ngoon amul problème xoolal yitteelu la si xoolal kii kii 5000 bi ni mu ko intéressé yow moo kii 5000 moo ko moo ko moo ko réer mu tere ko nelaw yow julli woo waxtu yëpp di ko waral muy ñàkk tawxiid loolu tax foog ñu bàyyi nit ñi suñu amul tawxiid gis ngeen xoolal fi mu nekk nii xoolal yi lim feesee soo doon lim ñi ci dul jullit est ce que di nga am fukk ñëpp jullit lañ mais xoolal xam lu ko waral mooy ñàkk tawxiid nga gis ku rey dara sangoo ko deret ji lu ko waral ñàkk tawxiid parce que démb dañ ma dañ ma woon benn seede benn waaye di rey ay ginaar di tuur deret ji soo gisee ni muy rende ginaar yi ni mu ñaawee su reyee ginaar yi ba pare ba dagg bopp bi nii lay def deret ji ci ay xeer ba ba deret ji jeex rek mu ne ginaar gi fër sànni ñi wane keneen koo xamante ne ay béy yu ñuul lay jaay mu ne léeg-léeg nga gis ku ñëw ma jaay ko juróom-ñaari béy mu dem suul yëpp ñuy dund loolu ba pare ñu ne ñu bëgg ñu nekk ak ay jullit lañ loolu tax foog ñu xoolaat suñu bopp foog ñu góorgóorlu ci tawxiid suñu amul tawxiid dañuy sonal suñu bopp rek suñu xadis bi ñuy jël tey mooy hadisu abi hurayra radiyallahu anhu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal la adwa wala tayra wala amma wala safar akhrajahu zada muslim wala nu'a wala ghulul yenent bi alayhi salatu wasalaam wax na ne la adwa mu ne bu kenn taafantoo wàllaate wàllaate mbirum wàllaate diw day wàlle wala nangam day wàllaate wàllaate ñaar la feebar day wàlle ay jikko ju bon day wàlle mbir mi ñaar la am ñaari maana xissi ak maanawi bu fekkee xissi mooy feebar boo xamante ne nit mën na ko am comme tey ni ngeen déggee feebar boobu Ebola ni ngeen di déggee choléra nangam ak nangam yooyu day wàlle yooyu ci mbirum feebar la waaye am na feebar yoo xamante ne maanawi la nga ànd ak nit ku bon bu yàggee wàlla mbonam day tux bu yàggee ngay ànd ak moom yow ngay tux day naan bu yàggee yow ngay naan yenent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lañ doon soññ nag mu ne wala tiira ma jaa fi tatayur troisième tas mu ne ak gaaflu gaaflu picculu moom la naan picculu balaa ngay def dara tàggu picc yi mooy li nit ñi di def da nga war a tukki nga jël benn picc sànni ko bu picc bi demee ndeyjoor nga jaar yoon woowu wëri bu picc bi demee càmmoñ nga jaar yoon woowu bu picc bi demee sow nga jaar yoon woowu wala da ngay war a tukki nga jël picc bi sànni ko nga ne picc bi bu demee penku baax na bu demee sow baaxul du ma dem nga sànni ko mu dem penku nga ne ah sama mbir baax na nga génn dem nga sànni ko mu jaar sow nga tekki say bagage toog xool am na ci dëkk bi ñoo xam ne bu ñuy xëy duñ daje góor am ñoo xam bu ñuy xëy duñ daje jigéen buñ génnee seen bunt kër gis jigéen di doom dañuy taxaw ba jigéen ji romb ñu doog a génn am na ñoo xam ne ne bu ñuy xëy génn seen bunt kër gis góor dañuy taxaw ay xale yi may àndal ñiy jàngi xale yu ndaw dama ko seetlu ci benn jigéen bu ma bu ma dëkkal fële suñuy xëy comme ñun buñ jullee rek dañuy départ buñ ñëwee ñu fekk ko muy génn buñ gisee ñu ñëw day taxaw benn bis moo ko xale yi man leen gis ngeen maire bi ñu ne ah man leen ñun lay bañ a dajeel ñu ne ah ñu ne man leen waaw xool leen mu taxaw ba ñu romb mu ñëw mu mu génn mu am ay fan rek man maa jiitu xale yi xale yaa ngi sama ginnaaw mu séen ma mu taxaw man ma romb xale yi ñëw ba ci digg bayaal bi taxaw mu taxaw ci buntu kër gi xale yi taxaw ci digg bayaal bi rek di ko xaar man dem naa ba yegg ci école ba ba ubbi gisuma ma ne nii gisuma xale yi sama ginnaaw ma jaaxle rek ma daw comme fajar la ma gaaw yéego yu tàng waaxu waaxu ma taxaw nii gis xale yi ñu taxaw ma ne lan la ñu ne di reetaan ma xool gis mel ma ne wala waay kaay leen kaay leen après ñu daal di ñëw mu daal di leen di romb dem voilà su xale yi taxawoon foofu léegi ma jëliwuma leen xëyam nu muy def xoolal nit ñi fu ñu toll xoolal nit ñi fu ñu toll am na ñoo xam ne leen jaral bu ñu la seenee nga ñëw ñu toog toog ba nga romb leen ñu jóg taxaw loolu ban diine la kon suñu diine gi moo tax dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mënu mënut a dëgër ndax ci base yiñ ko teg dafa teguwul fenn waaw soo gisee xeet wi tey li ñuy sikkal ci ay mbir kenn xamul nu mu toll wala kenn du jaale guddi kenn du seeti ku feebar guddi kenn du socc guddi kenn du wattu guddi kenn du jënd lu saf guddi kenn du jaay puso guddi non kenn du ñaan xorom guddi fi mu ne da ngeen koy ñaan xorom daan may ma saf cin te am ngeen saf cin saf cin ak xorom lu ko tàqale ay affaire yoo xam ne bu ñu réeree guddi kenn du bale noonu la ñuy bàyyee lekk gi ci digg kër gi kenn du bale guddi kenn du raxas guddi ndax xoolal ndab yi ñu bàyyi ko mbóot yi nekk ci kër gi fu ñu reere bu ñu ko balewul ñu bàyyi mbóot yi ñëw ku nit ñi di amee amee santé yoon yoon yoo xam ne xel da koo nanguwul yooyu yëpp lu ko waral mooy ñàkk pas-pas bu baax ñii duñu sangu àllarba ñii duñu tukki àllarba ah non Sénégal rek la seen problème yombul de puisque amuñu diine benn waaye soo waxee mu ne tuubeen lañ mais est-ce que ñun tuub nañ dëgg-dëgg réellement parce que ku tuub mooy ku bàyyi li mu nekkoon dem ci l'islam mais tuub nañ tuub goo xam ne yow ba léegi ku doon takk mi ngi takk ku doon gàllaaju mu ngi gàllaaju CD bi ma leen wax dama ko doon seetaan waa ji dafa ne sama maam sama sama maam mooy aar Ndakaaru mooy lig daawur mu ne mooy aar Ndakaaru Ndakaaru kay wax dëgg yàlla yàllaa koy aar Ndakaaru mu ne sama maam mooy aar Ndakaaru ah man su ma neexee ma coupé courant bi mu ne sama équipe da doon football ñu mëne ko ma coupé courant projecteur bi ki mu doon defal débat ne ko waaw léegi coupé studio bi coupé lampe yi mu ne non su ma koy coupé du yaa ma koy wax xam nga mënu ko parce que moom en direct la ñu ñaa ngi seetaan ah yooyu la nit ñi gëm ay rendi ay sacrifice ay sangu ay takk ay gaaflu ay tiisal non léegi nag nit ñi bëgg nekk ay jullit xam nga loolu yëpp lu ko waral mooy nit ñi ñaat jànguñu tawxiid xamuñu lan la diine ji nangu xamuñu lan la yàlla wax xamuñu lan la yonent bi tere xamuñu la yonent bi ne lii mooy diine yonent bi dafa fekk waa Màkka ñuy def lii lépp mu ñëw di leen ko tere ñuy bàyyi. bu ngeen déggee xar mu jooy guddi lii la bu ngeen déggee picc mu sab waxtu wii lii la ah biddéew bii nii la moom yenn saa yi day dégg gis benn biddéew bu ne fër ci kaw nga gis ku naan ñu naan xaw ma am na ku kilifa gu dee ak am na ku biddéewam fàq ak yu kenn xamul réew mi da ngay daanaka fii da ngay jékki-jékki nga nekk innocent nii rek ngay def di seetaan gis naa dem benn kër ñuy tudd ñu rendi xar bi ba pare fees ko ñu jël jàppoo paanu yàpp bi dugal ko ci néeg bi liir bi nekk teg ko ci digg néeg bi mu ne lii nag ñu ne xetu xetu yàpp bi ba mu dugg liir bi ndax xaram la xaram la yaa axi léegi xet gi bu ko liir bi xeeñoo après lekk na ci ah dëgg-dëgg ñu dencal ko ko ci firgo yi ba màgg wala ñu supp ko sax ba jël ci ndox mi di ko ci naanal tuuti ñeex mi dañuy caaxaan rek ay caaxaan kese kese kese kese moo nekk ci diine Sénégal waaw diine ji ay foo fecc la pas-pas bi dara baaxu ci léegi nag réew mu mel noonu mbokk yi ngeen defe ne dinañ dem ngeen defe ne suñu diine dina tegu ci ay base yu leer yoo xamante ne dinañ nekk ay jullit lii yëpp yonante bi sallallahu alayhi wa sallam da koo tere moo tax mu ne wala hamma gis nga mooy assuuma mooy gaaflu di gaaflu fi mu nekk nii yàlla tere yàlla tere ay nit yi nit yi nit yi nit da ngay gis koo xam ne dafa am soxna gaañu lu ñuy wax ndaw si ay gaaf wala nga ubbi fenn di jaay am ku ñëw njëkk a jënd ci yow ñu ne yow pare nga kii xamoon nga ne dootoo jaral gis nga wala nga jënd benn fas dara dal la ñu ne ay xamoon nga ne su ko defee nga daal di jaar foofu araamal loolu lépp bu fekkee nit la nga tam ñoo ñëpp ngay dëmm lañ waaw ah waaw xar bu gënoon ñuul wala xar bu am trois couleurs waaw trois couleurs baaxul am na nu ñu koy tuddee ci Sénégal xaw ma lan musiba mbamba kumba xaw ma lan ñu ne xaru ñetti melo baaxul pittax kenn du ko yar ci kër naat baaxul ci kër ah sànq benn waay di ma nettali neen dafa dem ci benn sëriñ pour pour mu nekk milliardaire sëriñ ñu ne ko waaye boo dee da ngay dem safara de mun naa ko mais da ngay dem safara mu ne ko bëgg naa mu ne ko boo dee da ngay dem safara de mu ne ko bëgg naa mu ne ko demal marché ngay ni ma ginaar gu ñuul mu dem indi ko ginaar gu ñuul sëriñ bi sang ginaar bi takkal ko benn téere daal di teg dugub teg ndox taal safara fi mu sangee ginaar gi ba takkal ko téere bi ginaar gi ñëw ci dugub bi lekk lekk lekk ba suur nit ñaa ngi toog di xoole ginaar gi dem ci ndox mi naan ba màndi daal dugg ci safara si lakk ba xëm téere bi lakkul mu jël téere bi jox waa ji waa ji dem pour nekk milliardaire da ngay dem safara mu ne bëgg naa da ngay dem safara mu ne bëgg naa bëgg naa naa dem safara la sa të të të ah mooy loolu xamu ko da nga nit moom man ngaa fekk xale bu ndaw mu jàpp ci geenu gaynde di ko xëcc waaye papaam du ko def xamu ñun xamuñ noonu la demee ne bugg na waa ji defaral ko ginaar gi lakk ñu jël téere bi takkal ko ko moom mu dem uti xaalis bi ginaar gi moom lakk na ba xam ah ñooñu kay ñooy jiitu koo xam ne bu lay defar gàllaaj daan la bu neexee yàlla bu naqaree yàlla day am loolu lañ lay wax ba pare te li ci gën a graaw mooy dañuy rëy làmmiñ naan la ñun ay jullit lañ gënoo ñoo gëm yàlla nangam nangam fekk ngëm yàlla du nga nekk ci li la neex ba bari na gëm naa yàlla ngëm yàlla ay texte la texte yi ñooy xool ñoo lay contrôler est-ce que yow ngëm gi nga gëm wér na wala wérul li nga fas wér na wala wérul naka la nit di waxee ne man jullit laa mais damay sangoo deret man jullit laa mais waaye damay gaaflu man jullit laa waaye gëm naa nangam te yonent bi tere ko ba pare nag yow nga ni jullit nga ñu ne la lii ngay def yonent bi daf ko tere nga ni waaw waaw man xam naa ne yonent bi ko tere waaye nag maa ngi julli nag waaw maa ngi julli mais julli taxut a nekk jullit te julli taxul nit mucc ñun ñëpp yéen ñëpp jàng ngeen ko fa waylun fa waylun yàlla nee na xurwa ca safara ñii julli laa ciy dugal parce que julli gi baaxul bu julli gi baaxoon duñ dugg safara lu tax julli gi baaxul mooy pas-pas bi moo baaxul li waa ji fas moo baaxul li mu gëm moo baaxul kon mënta dugg aljanna looloo tax am na mbir yoo xam ne kenn waru ko sàggane surtout lu jëm ci pas-pas aqiida tawhid kenn waru ko sàggane da ngay fexe ba mu nekk ci yow nekk ci sa njaboot ba sa njaboot am tawhid nga xam ne du ñu ragal lenn du ñu ragal kenn ndax fawqa kullu qudra qudratullah koo gis mu am kattan yàlla moo ko ëpp kattan soo fexe ba sa njaboot gëm loolu nga gëm loolu leneen dootu la dootu la jaaxal waaye fekkee ne xale bi bu juddoo li ngay njëkk a def mooy takkal ko ngandum ndomb ci ndigg li loxo yi tànk yi takkal ko lam bu ñuul lam bu weex takkal ko ay yenn saa yi nga gis ay xale yoo xam ne doo doo leen xàmmee sax ndax ay gàllaaj yu ñu leen takkal xale bi bu la nee lii lan la nga ne ko gis nga lii moo lay aar dèjà yaa ngi dagg digganteem ak yàlla yaa ngi dagg digganteem ak yàlla da nga ko war a dox yàllaa lay aar loo soxla ñaanal yàlla yàlla rek moo fi nekk yàllaay kenn waaye nga takkal ko ay affaire ba pare ne ko lam bi bu mu dañ sa loxo sunu école yi am naa élève boo xam ne daaw dafa bàyyi magum jëmm la est-ce que CM2 la doon def toll na nii xam nga dafa bàyyi lamam laa tekki lam bi la ñëw ma tekki lam bi di ko samay triwaal ne ko fii école bi yàlla rek la ñuy jaamu mu dem yaayam ne ko ana lam bi mu ne ko oustaz ko jël yaay ji ne ko toogal mu toog ñetti fan yaay ji di ma wër école moo ñëw ñu ne yaay diw yónnee na fi yaay diw yónnee na fi ba ñu ñëw troisième jour fekk ma fa yaayam ne ma ana lam bi ma ne ko maa ko tekki ana ma ma ne ko mu ngi nii ma denc lu tax ma ne ko lam kenn du ko fi takk ñun yàlla la ñuy jaamu jaamu ñu lam mu ne kon ma génne ko ma ne ko foo xam jëme ko indi lam bi ma jox xale bàyyi jàngul noonu la ci ndombo yi noonu la ci lam yu ñuul yi noonu la ci lépp koo ne tekkil ñu ne noonoo bàyyil ba ci ren ñi ma àndaloon màkkaa ngi nii di ma dégg gis naa paa boo xam ne lam bi mu takk xaalis bi dijjaay bi mu dijj gars yi bëgg mu tekki ñu ñëw ci man ne ma paa bi daa takk lam ma ne bàyyi leen dinaa ko ko tekkiloo bu leen ci wax bàyyi leen rek bis bi ñuy armal waa bàyyi ba ñu dem biir ali ñu armal ba pare ma ko ma ñëw ci moom balaa may ñëw ci moom damaa njëkk ci kenn koo xam ne dafa sol ay dàll yu chaussure fermé te ko armal doo sol chaussure fermé man ko góor gi mun naa man ko simil dàll yi jëndi dàll dàll yi kenn du ko sol armal góor gi simi dàll yi tey ci loxo bi mu ñëw ci moom ne ko tekkil lam bi mu xulli ma bët ma ne ko lam bi day dañ wala aj bi yàqu yamu ma ci lam yi ma ne ko tàllal say loxo mu ne nii ma ne ko tekkil jaaro yi ba mu des benn mu tekki suuf ñu dem ba aj bi waaj a jeex ma ñëw ci moom ne ko ana lam bi mu ne mu ngi ma denc ma ne ko na nga ragal yàlla nga teg ko mais man bu ma tax bu ñu demaat Sénégal nga takk mu ne ma non non non xoolal tekkiloo nga ma ko fi rek tekki naa ko mais bu demee Sénégal nag xoolal bul bul dugg foofu kon da koy takkaat da koy takkaat mu ne ma non non tekkiloo nga ma ko rek tekki naa ko nag mais bu demee Sénégal moom xoolal bu dugg foofu ça veut dire que da koy takkaat ana aj bi aj bi nangu na waaye aj bi nangoon du ko takkaat lu tax nga nangu ne aj bi may def waruma takkalam ku nekk màkk du ma ku moom màkk du ma moom Sénégal wala dafa am yàlla màkk yàlla Sénégal fekk maa ngi naan ko lam bi boo demee nga tas ko def ko ay jaaro takkal ko say doom wala nga may ko sa soxna déet déet déet déedéet nag déedéet nag saas moom wax naa tekkiloo nga ma ko fii rek mu demee Sénégal moom bàyyi noonu rek da koy takkaat gisuma ko mais xam naa ne takkaat na ko loolu ci diine la day gis ay paa yu takk lam yu nganda wala ni ñu naan na sarax la tan moo la wax nga takk ko ku la ko wax sarax benn waaye moo la ko wax waajo yonent bi ne la bul takk waa ji ne la takkal nga takk te nga gëm ñaar ñooñu koo gëm yonent bi ne la bul def benn waaye ne la defal léegi nag nga ni man gëm naa yonent bi te yonent bi ne la bul takk dañ seetaat suñu bopp ay mbir la yoo xam ne kenn mënu ko jeexal ci sunuy mbiri bopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala safara mu ne am na picc moo xam ne mu ngi tudd ibu xam ngeen ibu araab yi naan ko buumun yéen ngeen naan ko loy am na ñoo xam ne yuuxu bi muy yuuxu dañ koy gaafal ëj am na lu xew de dégg ngeen picc mi loolu ban diine la dañ koy saaga waaw naan picc bi su yuuxoo rek musiba la te souvent picc mi su yuuxu information lay joxe day gis luy lore lu mel ne ay jaan wala yu demee noonu muy informer nit ñi ne am na luy ñëw nit ñi yu mel noonu la dul xam ñoom nañu jàpp ne saa yu yuuxoo musiba lay gaaf ah da ngay gis fi misaal rek koo xam ne ne démb jigéen buy muuru Sénégal ngi ñëw rek fekk benn xale bu jigéen buy muuru ci benn kër lu waa kër gi lu ñu koy wax dimbali ñu de dimbali ñu de ngay muuru nii mel ne di fi gaaf lu kenn xamul xool yàlla mu ne nit ñi muuru ñu ne dañuy gaaf wala xale bu ndaw buy dem jàkk ñu ne la tereel sa doom ji jàkk ndax teel naa commencé kàllafe torop di dem ci mag ñi di jéem a julli loolu wóorul même da ngay gis sax xale bu ndaw boobu yàlla defee mu génn àdduna ah xamoon nañ ko waxoon nañ la ko ndax kii li mu tere commencé li mu teel a ko dafa gaaw waaw kon léegi ça veut dire que boo nekkee xal da nga war a nekk kon bandi pour doo dee ba nga mag ban diine lañ jàng yàlla mu ne kuy julli day gaaw a dee mooy diine Sénégal di gaaflu ci ay picc ah ci ay rabu àll ay fasaki ay otoog waruwaay yeeg lépp amuñu dara lu bàyyi waxtu yeeg waxtu yi sax dañ ci gaaflu bis yi waaw weer yi yépp da ngay dégg ah weer yu kenn du ci takk jabar baralu kenn du ci takk jabar ci kenn takk même heure yi sax mu son nañ ma wax benn takk li gën a garaaw liñ ma def ne ma yow yaay tag yow yaay ñaan fa ma doon liggéey 3 heures laa fa jóge luwee taxi ñoo sama kër sanguwuma ndax ragal tardé si meeku solu ñu jëlaat taxi ñu yegg si fi ñu war a takkee ñu ne ñi ñi ñiy maye ñëwaguñ ndeke ñi ma àndal nga xam ne ñoom ñooy ñaani changé nañu heure bu yàgg ni timis la ñuy takk man maa ngi jàpp ne ginnaaw takkusaan ñu ñëw ba toog lal basan yi ñu ne takk bi timis la de ñu ne léegi lu ñuy def waa ngi xam ngeen tëdd ci basan ngi nelaw ba timis jot xool xool waxtu yi ñu lay sànkal xamuñu heure lan nga programmé woon ginnaaw takk gi xamuñu ma ne waaw lii lu sax ah ñun waaw ñun ñun moom vraiment heure bi la ñu xam ci takk bi ñuy mayee ñëwee ba ñu takk ba pare timis man leen man dama am benn laaj bu ma bëgg a laaj parce que tey dama am problème takk bi lu tax ngeen yóbbu ko timis walla bëgg xam li may wax loolu ne xaw ma woon ne ñi ma àndal ñoo ko def noonu te ñi ma àndal ñuy ñaan si ñoo ko changé du sax ñi maye ñu ne waaw euh, xam nga sëñ diw moom bu daan takk waxtu wi lay takk te ñun sëñ diw mooy suñ sëriñ waaw moom def loon ñun duñ ko def waaw di dëgëral nag di tudd tur bi di ko dëgëral nag ba mu ñagas waaye ngeen ngeen seen sëriñ moo leen leen ngeen takk heure bi seen sëriñu sëriñ nag moom ban heure la wax nañ takk sëy yi ñu ne kuy suñu sëriñu sëriñ ma ni Muhammad ñu ne ah, seen kanam yi ñuul nag waaw waaye weddi leen ko mooy sëriñu sëriñ si de moom heure bu ne la nee na mën nañ cee takk moom taamul benn heure ñu ne waaye ñun kii moo nu doy waaw ma ne waaw loolu laa bëggoon xam man nag bu ngeen ma waxoon kooku moo leen doy wallaay du ngeen ma gis fii ndax man dama am liggéey yu ma war a liggéey ñëw ma fi di tëdd di xaar benn sëriñ bu ne timis la ñuy takk sëy waaw ñun de moom lañ ñun moom lañ gëm moom mooy moom lañ nekk ci ginnaawam waaw léegi ku nekk ci ginnaaw keneen bàyyi nekk ko ci ginnaaw Mouhamed yow luy sa àtte ëllëg mais dañuy topp seen langage yi ak di jéem a wane ne dañoo gëm bu dugg ci musiba ak di dëgëral même woyu guddi yi loolu ngay dégg woyu guddi yi ñu takk rajo yi di gaaruwaale waa koñ bi diw mooy borom jaam ñee di tëgg diw mooy borom jaam ñi di ko wax ci rajo yi guddi di gaaruwaale waa koñ bi parce que xam nañ ne xamaanaa wax am na ñu nekk ci koñ bi gëmuñu loolu loolu du diine te yooyu musiba la te yow mi koy wax xam nga ne du dëgg yaa ngi am bàkkaar yaa ngi fen mooy borom jaam ñi te dee na bàyyi fi jaam ñi te dee borom jaam ñi kay dafa war a toog di xool jaam ñi kon kii borom jaam ñi moom mu ngi fi di wattu jaam ñi di leen wërsëgal ñuy dund koo koy borom jaam ñi mooy yàlla waaye yenn yi ñun war nañu xoolaat suñu bopp mbokk yi war nañu xoolaat suñu bopp xoolaat suñu njaboot loolu yàlla ne woon aleykum anfusakum laa yadurrukum man dalla isahtadaytum ah ngeen demee ba jamono lëndëm day jàpp leen seen bopp ku nekk na nga toog ci sa bopp garde sa bopp wattu sa bopp soo wattoo sa bopp kuréer du la munal dara waaye nag du nekk sa bopp rek ak sa njaboot ak sa njaboot ngay fexe ba li nga gëm nga dugal ko ci sa waa njaboot ñu gëm loolu kon yonent bi alayhi salaatu salaam loolu lañ doon dénk mu ne abu saada nee na al adwa ismun min al idaa'i karraa yuqaalu aada addaa lim ci bëgg a wax mooy iza asaabahu mislu ma yus ma bi saahibihi adda mooy jàngoro la rek juy wàllaate mooy loolu ñu naan wàllaate wàlle wàlle nag ku nekk ku yeba mu xam ne ci ñaari mbir la wàllaate mën naa am ci feebar waaye wàllaate mën naa am ci jikko ci melokaan waaw am na benn borom xam-xam bu muy firi hadis bi la mu joxe comme misaal mu ne moytu leen toog ci kuy upp furno mu ne kuy upp furno ñaari mbir ngay jële ci moom yërey xasaw ak yërey lakk mu ne kuy jaay parfum nag ñaari mbir ngay jële ci moom moom tamit xet gu neex wala mu may la nga yóbbaale boo toogee ci moom mu may la nga yóbbaale am nga bénéfice bu la mayul moom nga toog fa boog di nooyi xet gu neex ba uppkatu furno nag moom xet gu naqari ngay nooyi te boo moytu nga jële fa yëre bu lakk ndax étincelle yi bu dalee sa yëre mu lakk te yëpp day wàllaate loolu tax nit war a wut àndandoo bu baax soo wutee àndandoo bu baax mu wàll la ci ci mbaax waaye boo wutee àndandoo bu bon mu wàll la ci safaan bokk na ci mu ne xadisu muslim mu ne abu hurayra ba tey nee na kaana yuhaddisu bi xadisi la adwa wa yuhaddisu an innabi annahu qaal laa yariduhu mumarrid ala muslih summa inna aba hurayra iqtasara ala alxadis mu ne aba hurayra toog na di soññ nit ñi di leen leeralal xadis bi muy la adwa muy wàllaate bi mu ne mu leen ci soññ di ci wax ba ci yàgg mu daal di gàttañ lu amaana gàttañ lu bi seetlu bu mu seetlu ci nit ñi seen ñàkk a jublu jëfi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala seen ñàkk nangu wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme buggulaan teg ay bakkaar mu daal di gàttañu mu daal di gàttañu su ko defee bunt la boo xam ne yaatu na trop ci sahaaba yi soññ jiñ ci soññ mu ne la adwa jamaatun min asahaba anas ci la bokk ibnu malik jabir ibnu abdullah ñoom ñëpp ak ibnu omar ñu ci bëri ñoom ñëpp ni ko abu aba hurayra firee noonu lañ ko firee mooy lan mbirum wàllaate la gis nga même feebar bi ngay ñuy wax léegi ne moo nekk ci jamono bi jàng nañ yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne feebar buy alagaate wala feebar bu rëy bu toll nii bu amee ci dëkk su ngeen ko déggee mu ne bu leen dem ci dëkk boobu waaye ñam fa ñamu ña nekk ca dëkk ba bu ñu fa jógee même loolu hadis la te xoolal léegi nii bi mu amee nii nit ñi lan ngay gis ku nekk naan damay tëj lan sama frontière kon bu ñu doxalee woon mbirum diine yu bari ci yi ñuy jooy ak di ko jàmbat islam rek la woon na ko diine ji rek la woon na ko bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg waaye nit ñi seenu dëgër boobu ak ñàkk nekk ay jullit ak dafa ne moom islam moom julli kese kese kese kese la amul leneen lu mu wax loolu moo leen indil ci jafe-jafe yu gën a bëree bëree bëri kon mbokk jullit yi ñaari benn xadis boobu moom lañ doon jël tey ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun dégg ak topp incha allah bi iznillah bu ñu amaatee yeneen dars yi ñu continuer yeneen xadis yi di ko jël par benn benn yeneen yàlla mu dimbali ñu ci daal di dëgëral suñu pas-pas daan ñuy dundal ci islaam ak iman rey ñu ci tawxid rey ñu ci sellal salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaw waaw waaw